président Macky Sall yi peut-être. doo fa doo fa dem kon donc moom su demee ba nekk euh, DG ou président OFNAC je sais pas mm-hmm. qualificatif mm-hmm. di tontu Ousmane mm-hmm. Sonko mooy président mooy président euh, c'est ça président excuse-moi président donc nag di tontu Ousmane Sonko du point de vue euh, du haut de sa présidence de OFNAC après avoir été procureur vraiment je pense que peut-être. Mhm. Euh, Ousmane Sonko aura peut-être raison. mais mais est-ce que Ousmane pas reprochable ci approche bi ni mu jëlee yëf yi ku ne mu tiire si yow. ba affaire bi ba léegi parce que bàyyiwul kenn. waaw waaw waaw waaw est-ce que en quelque ko mën a reprocher foofu moom tamit ci euh, approche bi. Euh, non no non pour moi je suis plus dans l'analyse des parce que il faut ngeen comprendre aussi. Mhm. Ousmane Sonko. Mhm. ci logique bu mu nekk. Ousmane Sonko dès le début. moom dafa ni il est dans la logique politique il est dans le combat politique. moom jàpp na ni lii ñu koy tuumaal. complot du daray droit du daray loi lépp affaire politique la. pour ñu ko empêcher mu présenter candidature am. dès jàpp na ni ku ci taqe moom Ousmane ko ci démarche am. mu yokk ci liste bi de loin ou de près da lay dugal ci biir <coughs> complot bi. est-ce comprendre nga. et ay la yéwén ba fiñ ci toll ba léegi euh, en attendant ñuy dem procès. Mhm. mais ba fiñ ci toll ba léegi euh, Ousmane Sonko et dans une logique politique. avec des démonstrations mais est-ce que waaw même ma ñëw même ma ñëw. Mhm. dans cette affaire là bu ñu ko xoolee ba ci biir. Mhm. Ousmane Sonko est dans une logique politique avec des arguments scientifiques. attention parce que lu ne indi na benn preuve ou début de preuve teg ci table bi. Ah. Ah. comprendre nga. Ah. ñeneen faneen génne nañ ay audio. ñeneen génne nañ ay et cetera. donc ça veut dire que lui il est dans la logique politique mais avec une démarche très rationnelle très scientifique. mooy day teg ay preuves. peut-être lii euh, comme li nga ma laaj preuve yi mu teg. moom la Serigne Bassirou Gueye. Euh, réfuté. bon disons que c'est de bonne. accusation yi mu def ci falsification. voilà voilà yooyu yëpp maintenant loolu nag juge rek. procès rek moo ñu mën a wax. Euh, ndax falsifié na voilà kii di Ousmane Sonko wala kii di euh, sëñ bi Guèye. Mhm. Euh, kana wax dëgg quoi mhm. parce que loolu moom mhm. procès rek. moo ñu mën a wax mais bu ñu demee ba ancien procureur parce que c'est de lui qu'il s'agit def déclaration wax ni ñëw ma tey pour charger. mais su fekkente ne continue na dinaa wax leneen loo xam ne xam naa ko ci dossier à quoi lan la ñu war a xaarandi ci loolu nga xamante ne maanaam lu bees la ci yëf yi. ah bu fekkee mooy l'ancien procureur ak ki nga xam ne moom lañ accusé histoire de passe d'armes ak mel noonu. su fekkee moom de mel na ni kon dafa xeeb li mu def nii li mu def nii chargé la de. Ah, comme nee ah ah, def nii. Hmm. Euh, daanaka boo ko analyser hmm. euh, euh, li Ousmane ko waxoon lépp daanaka mu teggi ko. daanaka voilà daanaka kon c'est une certaine manière chargé na Ousmane. Hmm. moom kay xanaa dafa bëgg a wax ni danaa yokk yenn bi mu gën a diis. waaye ci li mu def ni mais bon. de toute manière. Euh, fi mu toll nii daal fii fiñ ci mhm. toll moom. Mhm. Euh, werante xuuxaan daal moom saa waay. Mhm. si mi tubay rek. fi mu toll nii ah. coow li bari na bari na. ku am say preuve ah. teg ko ci taabal bi quoi. fi mu toll nii. même di wax yooyu sax. su ma doon moom de comme xis naa ba agsi ci fii moom. Euh, mooy la tafaatin doon wax rek. mbir moom boo demee ba ciy tax moom. takk ci rip da cay gën quoi. Hmm, kan a takk mais mais nga bañ cee takk takkalu moo procureur comme loom moom dem na ba hmm. weddi tuuma. Hmm. comprendre jàpp ne dañ koo sosal. dafay weddi tuuma. xam na lu koy setal. moom jarul mu koy dog-dogee nañoo wax lépp rek teg ci taabul bi rek. comprendre nga askan bi moom ñu ngi toog du di di déglu. Euh, dès lors euh, amoon na occasion wax. Euh, moom it euh, na wax. Euh, li mu bëgg a wax. wala mhm. li mu xam pour wax ko parce que loolu lépp dina mën a permettre askan bi aussi ñu xaw a gindiku. Mhm. ci benn côté wax ji laa bëgg a xam si lu mu mën a yokk Ousmane Sonko jamono ji wala lu mu ko mën a wàññi fi affaire yi toll. déet ancien procureur de la République. déet Sonko nag mel na ni. Mhm. wax ji sax da koy gën a yokk. xam nga man ah ma jox la misaal non ci ci lu ne rek. xam nga c'est la première fois. ci histoire politique. moo xam Sénégal la ba ci bitim réew jëlal François Fillon. jëlal euh, Dominique Strauss-Kahn nit ku ñu jiiñ lu toll ni siif viol. ak nu mu diisee ñu jiiñ la ko lu ëpp ci askan bi. ëllëgee nu jéppi la ñu doxe fa sax gën laa gën a bëgg loolu ci cas Ousmane Sonko laa ko gën a laa ko gisee. c'est-à-dire moom li ñu ko jiiñ nii. kañeen ku ñu ko fi jiiñoon brisé na sa carrière politique mais moom non seulement brisé wul carrière politique am. Mhm. mais da ko may loo xam ni sax bu dul woon lii peut-être que sax du ko am. Mhm. ci en terme de notoriété de. parce que missaal masalan. Mhm. Ousmane Sonko ba muy doog door doon politique te yëfi yii nii dugg ci woon moom xale yi la àndaloon wala xale yi ñoo àndoon ak moom. bañ ca dugalee seen yii ñu cay dugal affaire u jiin yee di dem ña nga xam ni démb dañoon wax naan ah Ousmane Sonko di moom ay affaire am euh, dama ciy teye affaire am wóoluwuma ko ñoo ñu mujj gi ñëw sax am sympathie ci moom masala c'est-à-dire que euh, Sonko bi muy doog a door affaire xale yi la affaire jeunesse la woon léegi nekkatu rek affaire jeunesse demi paa yi paa yi ñëpp ñëw nañ ci combat sans pour autant sax ñu comprendre moom lan mooy la ligne politique lan mooy sa ses axes programmatique et doctrinaires. Mm-hmm. mais ci li ñu ko jiiñ nii. Mm-hmm. ñaari affaire rek mooy mën a am. su waat ca la ñu ko jiiñ jiiñ mm-hmm. askan bi. parce que ñoom aussi dañu am forme intelligence ce qu'on appelle l'opinion dañu am seen intelligence même s'ils ont leur propre vérité ils ont leur op leur leur intelligence euh, et leur propre mécanisme de fabrique de la vérité léegi nag ñooñu jàpp nañu ni kii dil bi ñu koy bëgg a sosal nii dil bi setut est-ce que comprendre mm-hmm. nga loolu mooy tax du point de vue de la justice populaire mm-hmm. euh, opinion populaire moom àtte na ba pare mm-hmm. di ñëw teg ñaari affaire moo mën a am ñaari affaire moo a am ñaari affaire moo soit euh, ca ña koy jiiñ mooy nguur gi à l'état actuel seen dil bi setul ba mujj gi Euh, indi na jiixi jaaxaat ci opinion bi. Ah. bañ jàpp nañ ni kii kon. Ah. suñ ko bëggee euh, atte ñàkkal ci lii jaay doole la ou bien mu doon mbiru suñu borom. Ah. comprendre boo xam ne moom moo yor say bagage quoi. lu waa ji yaakaar ni moom pare na ko pour ñëw dal. lu contraire moom da koy gën a dugal mu gën a génne loolu mooy loolu mooy première analyse. de beneen bi mooy euh, su fekkoon ne maa ngi doog a gis ci politique gu Sénégal. nit ñu jiñ la lu diisee noonu. siif non seulement perte loo sa crédibilité. Mhm. mais ak xaalis nu mu saxee ci xol nga woote fii xale yi di boolaat mobiliser waat jox la trois cent trente million loolu est ce que contexte bi joué également. non non loolu lépp ça veut dire léegi boo koy. Euh, mhm. analyser mhm. xam nga ñoom mosuñu lever lu toll nii ci xaalis. ci xaalis waay effectivement c'est c'est mosuñu ko lever te man très bien te man jàpp naa ne. ñoom waa Pastef fii. seen capacité financière ëpp na sax trois cent trente millions. est-ce que comprendre mhm. man jàpp naa seen gis leen mais léegi loolu lan lay tekki. Mhm. dafay tekki ni am na ni muy demee ci mobilisation xaalis bi. Mhm. du waa Pastef rek joxe. am na am na ñeneen ñoo xam ne am na ñeneen ñoo xam ne sax sunu classe gi ñoom góorgóorlu yooyu nga xam ni. du jëmmi Sonko moo leen di intéressé. mais jëmmi état de droit justice ak di bañ kumba am ndey ak kumba amul ndey moo leen di sax la cest à que foofu nañ tollu ci combat côté côté euh, empathie ngay wax très bien cest foofu uh-huh. euh, xam nga dafa mel ni depuis ñu commencé euh, yenn orange yi uh-huh. mooy sunu classe gi demi paa yeeg paa uh-huh. ñi nga xam ni dañuy commencé di jublu ci Sonko jublu mu ci Sonko parce que sikkimba daa rafet de wala weeree daa rafet wala jantal booy la ak yooyu de déedéet dañu ko dañuy jublu ci moom parce kii nag lu ëpp bëgg a tuuru mhm. lu ëpp tuuru mhm. ndax kii nag ñu ngi koy jéem a jaay doole te Sénégalais bëggul bëggul kuy néewal nit doole président Macky Sall la ko mayoon chance mhm. mooy nit ñi bañ jàppee ni Abdoulaye Wade da ko bëgg a toroxal Sénégalais bëggul ku toroxal nit te Sonko waxuma la sax jaay doole gouvernement bi fi ñu àgg ak moom romb na jaay doole dañ ko bëgg a toroxal xawi suturaam léegi dafa ay Sénégalais yoo xam ne sama classe gi ne ñuy nekk ñoom du seen Sonko sax moo leen mais ak ak yelleefu doomu aadama ak dëgg ak li ñu jàpp ni mooy dëgg mhm. ak di bañ kumba am ndey kumba am ma jox la rek misaal ma jox la rek mhm. masala euh, rapidement euh, lan moo tax euh, sonko yi di dem mhm. moom xoolal le cas de Fadilou moom dafa bind rek dafa poser question interrogation est-ce que ah reyuñu sama frère ñu jàpp ko dóor ci kaso bi l'autre là Suzanne Camara taxaw ne Ahmed Suzanne waaw Ahmed Suzanne Camara taxaw ne kee dafa posé woon interrogation mais kii dafa affirmé ne ñii dañ leen rey parce que dañoo kii génn di dox ci benn xam nga ñaari affaire yooyu buy faral di am sunu classe gii nga xam ne ñun ñun ci état de droit nañu nekk comprendre ñun ay républicain nañ ñun ay démocrate nañ bu ñu gisee deux pois deux mesures ak yooyu loolu daf ñuy révolté boo xam ne suba su Sonko wootee demu ñëw pour que jëmmi Sonko moo tax ñuy woote de mais dëgg dëgg comprendre nga ak droit ak état de droit li ñu moom te bokk ko ak yam ak yamale ñun ñëpp ñu égo loi loolu moo tax ñu jóg te il m'a semblé Sonko Euh, depuis deux mille dix neuf ba affaire deux mille dix neuf. Uh-huh. moom waa Pastef la amoon. Uh-huh. mais depuis ba affaire bi jóg. deux mille vingt et un. waaw deux mille vingt et un ba affaire bi jóg. li uh-huh. ñuy gën a dem nit ñi di sant di seen xel di tey. léegi dem na ba am na ñoo xam ne nag ñëw nañu rallier si ko. Euh, euh, moo doon di paay mhm. paay ak mhm. maire yeeg yooyu fi ne tey jii boo xoolee mhm. euh, capital sympathie yow loolu nag dafay dem ba tax ni li procureur di def wala ancien procureur Moussa Ndiaye yeeg yooyu ñoom lu ñu gën a def rek mi ngi gën a renforcer wu sànq ci position ancien procureur bi ngay wax mooy sëñ Bassirou Guèye ci génn bi mu génn ak ban casquette lay waxee mais moom ci boppam tamit gis nañ il s'en prend également à quelqu'un comme le capitaine Touré mi nga xam ne moom moo yoroon yëf yi au début dem ba ci biir génn ci ay déballage génn def ay sorties yu mel noonu. genre sorties yooyu ci ñooñu nga xam ne c'est des gradés anciens procureur là un capitaine de gendarmerie ndax amul luñ ci war a xoolaat aussi wala luñ tiitaange war cee mën a am. waaw waaw parce que daal euh, ba. tey moom guddi xam naa danaa ko danaa ko lijjanti. danaa génne waat document yëpp xool ko quoi ci le statut des magistrats. Euh, ou même la le statut des des hauts fonctionnaires de yaakaaru ma ni à l'état actuel sunu euh, réglementation. Mhm. may na procureur. lu matul at. ca ba mu jógee ci fonction procureur bëgg génn nii en tant que euh, simple citoyen ci kaw capitaine Touré justement nga mais li li li ma ko ñaawloo ci euh, Sonko. Uh-huh. noonu laa ko ñaawloo ci capitaine Touré comprendre nga. Uh-huh. parce que euh, moo tax ma ne la bon parce que nit ñi dañuy jàpp dans les imaginaires que capitaine Touré ci camp Sonko la bokk. Uh-huh. comprendre nit ñi di jàpp dans les imaginaires que Serigne Bassirou Gueye ci camp pouvoir bi la bokk. te léegi xeex bi diggante Sonko la ak pouvoir kon donc c'est tout à fait normal il est dans sa cohérence logique mm-hmm. su attaqué yow Sonko après mu dem attaque attaqué euh, kii capitaine Touré voilà moo tax léegi fi mu toll ni moom mm-hmm. euh, comme mbaxane moom euh, fenn lay nekkee benn rek mm-hmm. te werante xuuxaan si tubéy ñoom ñëpp ah, d'un camp comme de l'autre ku ci am ay preuve nañ dem tribunal waaw pour man loo xam ni warul woon a romb gendarmerie ñu def tout ba rombal la ko gendarmerie. Mhm. bu ñu ko arrêté ci digg yoon bi nañ dem ba ca pandaw ga mhm. ñun ñëpp nañ dem ba gendarmerie. Mhm. Euh, tribunal ba ca procès bi ñëpp teg seen i preuve ñu xool en parlant de preuve également euh, xel mën na dem également. procès boobu nga wax parce que ba léegi ñu ngi xaarande ñu def enrôlement bi mën a jàpp date bi kenn xamul ndax léegi lay doon wala day yàgg mais Ousmane Sonko bi waxee ne renvoi de procès euh, ci chambre criminelle dañu commencé di xalaat est-ce que li amoon 2021 du amaat est-ce que dina déféré su fekkee enrôlé nañ affaire yi ba jàpp date mais li ñu gis ci méga bi nga xam ne euh, def na ko je pense que ci euh, début de semaine bi euh, mën nañ jàpp ne c'est un Ousmane bu taxaw ci tànk guerre comme ni nga ko doon waxee si le mot n'est pas trop lourd même waaw xam ne fas yéenewul mm-hmm. déféré à convocation au cas où dem ba yegg foofu Ousmane Sonko ñu enrôlé affaire bul déférer une convocation lañu war a mën a xaarandi comme conséquence. waaw euh, ñaari conséquence mooy mën euh, ñaari lecture ci conséquence bi euh, du point de vue du droit ak du point de vue politique maintenant il s'agira euh, pour le cas Ousmane Sonko d'en apprécier est-ce que c'est l'aspect juridique la ñuy mettre en avant ou l'aspect politique su fekkee aspect juridique euh, ça peut être un précédent dangereux. Euh, parce que nous sommes tous. égaux euh, devant la loi du dëgg ah. mm-hmm. donc bu ñu yoon wootee euh, dañuy dem ñu dem wuyu ko oh, parce que euh, bañ a dem wuyu mën na nekk aussi une forme de fragilisation de nos institutions mm-hmm. et que mën na nekk sax dem ba nekk benn jurisprudence que tey jii ëllëg bu Ousmane Sonko demoon ba nekk président mm-hmm. man mi góorgóorlu su ma nekkee ci dëkk bi di troubler su ma woowee duma ñëw mu woo la nga ne ko <laughs> yaa xam nga loolu tamit mën nañu mel mm. la mm. day fekk ñu nekk ci droit mm. day fekk ñu nekk ci droit mm-hmm. beneen bi tamit euh, day fekk ñu nekk ci politique moo tax ma ne la boobu mm-hmm. Pastef mooy évaluer le niveau de risque parce que ñaar yëpp dafa am risque mm-hmm. xam nga mooy yan exactement voilà très bien xam nga euh, liñ ñaan yoon dafa sew su fekkee Sonko par exemple dafa nekk ci logique politique yoon dafa sew ci bis bu demee wuyu ji. Mhm. bis bu yoon même bu ko parce que à l' actuel gaw ma ni mën nañ ko condamner à l' état des preuves mhm. actuelles mhm. xanaa leneen lu bees génn euh, mais pour ñu condamner ko ferme mais est ce que déchéance waaw waaw vraiment foofu laay ñëw nii pour ñu condamner ko ferme du point de vue de toutes les théories qu'on a appris sur le viol et dana compliqué lool mais par contre mën nañu ko tilimal kaso la uh-huh. mënees na ko bañ a tëj mais mën mën mënees na ko taqal tilimal ko te buñ ko taqalee rek tilimal ko uh-huh. te tilimal boobu ak taqal boobu euh, moom day am conséquence comme bu fekkee tëj nañ la masalan uh-huh. su fekkee dañu dem procès gars yi wax même bu dee sursis la moom il est disqualifié et c'est là où se trouve le risque stratégique dans l'option politique parce que dans euh, su fekkee yow da nga nangoo dem procès ba ñu xësee ba joxe verdict même bu ñu génnoon di xeex fii ba suba it verdict ba du deñ est-ce que comprendre nga li di retourner en arrière très bien doon ñu détourner en arrière et d'ailleurs peut-être c'est foofu la Ousmane Sonko di expliquer que dès lors que moom jàpp na c'était un procès politique moom du may échappatoire sa veut dire que lii que ñoom dafay mel ni comme si tout liñ ci rek mooy tilimal ko gàqal ko ba du dem mille vingt 2024 te bés bu xësee ba dugg dans les griffes de la justice yoon dafa sew même bu ñu ko tëjul de ferme mën nañ ko dóor benn sursis boo xam ne ñàkk dem tamit taxul ñu bañ ko àtte parce que voilà très bien donc ci mmh. dilemme boobu la ñu nekk mmh. sa à mu ñàkk dem mmh. dafay indi un précédent dangereux te ko su boobaa man mii góorgóorlu euh, bis bu waxuma la sax avant Ousmane di ñëw su demut man dinaa toog fii wax lu ma neex ma Macky wooye ma ne ko dew ma parce que ba nga wooye Ousmane demut xam nga mhm. te kon loolu c'est précédent dangereux